résultat yi moom comme noonu rek ñun ñoo ànd gañ ensemble département bi ñëpp ñëw conseil opposant foire kon duñ mën lu sant ñëpp gërëm ñëpp xamal ni tamit département bi rek moo gañe li ci des it mooy fas yéene liggéeyal département bi taxawaay bi mooy rek nu comme ni ma la wax rek dañoo ànd gañe dañoo fas yéene ànd luñu ñu war a def rek ñu ànd liggéeyal ko département bi loolu taxawaay liggéeyal département bi rek lañ fas taxawaay taxawoo waaw xam nga opposant bi pare wuñ ñëw mais boo xoolee ensemble li ñëw di man mënoo xam opposant ñëw na mënoo xam opposant parce que boo xoolee li participer da ngay rek ñëpp a ñëw kon sant ñëpp gërëm ñëpp daal lañ mën a def sànni foofu ay quelques kàddu kàddu yi mooy moom taxawaay bi ma taxawoon rek man yokk ko mu jëm kanam laa bëgg a def dimbali askan ñi ma ma ci man yokk ko ndax li ñu jox du lu ma moom xëy na ndomba gi moo fi nekk ñu wékku ko mais dama am yéene am lu li ma ciy jëlee ba mën koo ci fàq man nag bi yoon ci opposition bi laa nekk waaye ñëpp xam nañ ne que opposition bi dañu ne dañuy boycotté kii bi wante témoignage bi ma bëgg a def moo di que si Sylla mi dafa doon koo xam ne si ñi nga xam ne si ñoo ànd ak moom di liggéey bokk ak moom parti euh, dañ ko war a jàpp parce que li ma mën a témoigner mooy pouvoir ak opposition existé wul ci département de Mbacké benn responsable bu ko mën indi bu ko mën a ëppale apport bu mu mën a ci parti bu mu mën di bokk la muy mën a déplacer ci ay nit ñu def acte bu important bi muy voté amul benn responsable y compris moi-même bu ko mën a ëpp doole boo xam ne ñi naa tàllal loxoom ci département wu Mbàkke yëkkati loxoom ne ko maa ëpp àll si la doole ci nit ñi maa ko ëpp njëriñ ci nit ñi amul ko man man mii ak ñi nga xam ne si xam naa leen ci conseil ñëpp moom mii moo tax ma déplacé wu ñëw voté toog fi ba mbir yi jeex kon nag ñi mu àndal di liggéey war nañ ko dolli bu baax a baax considération politique du ku jàng tubaab dong du politique li mu doon dëgg dëgg li lii tax nga am ci njëriñ mooy ku déggoo ak say bokk te yàlla defal na ko déggoo na ak ay bokkam dañuy wax ne que lii nii enfin la ñuy wax moom dafa yéex a am li nga xam ne si mooy cëram ci politique waaye nag li wolof di wax lu jot yomb moo ñëw tey jii kon liñ koy ñaanal mooy yàlla defal ko muy opposition muy pouvoir danañu lépp loo xam ne si soxla na ko ci biir département bi ndax xam nañ ne du soxla lu dul lu amal njariñ population yi lépp loo xam ne soxla na ko danañu ko ci accompagner fépp foo xam ne si woote na fa danañ ci ànd ak moom ngir xam nañu yéeneem te yéeneem su sottee population yëpp kontaan. waaw ma dama ne dama wote ngir moom. woote wote woote ay nit ñu wote ngir moom toog fi ba ñu ba ñu def dépouillement bi ba ma xam ne gagné na ma félicité ko tax xam na nag victoire boobu noonu may wax képp koo xam ne si ku mën di doon wallaahi alazim ëppoo ko ci loo loo loo indi. ay bu dee cinq cent dix personnes voté nañu pour pour pour Benno Bokk Yaakaar man na maa waat nekk quatre cent yi àll si la tax nañu waat moom moo tax ñu waat